mbokk mi guddik ñentel tay nak insha allah rabbi wa man salla fi arbau rakaatin yaqra fi kulli rakaatin bi fatihati alkitab wa qul ya ayuha kafirun salaasa maratin la yaqum min maqami hatta ya'firu allah lahu dhunuba wa yaktubu lahu ibadata alf zahidin tay ñu ngi nafile insha allah rabbi ci guddik ñentel gi ñu ci nafile ñenti ñeenti 4 quatre rek lañ ci nafile waye rakk bu dañ ko jàngal fatihatul kitab so noppee nga teg ci xul yaa ayyul kaafiruuna ñetti yoon soo ko defee ba yeggal kon da nga gis ne kon comme ñeenti rakk la kon da nga gis ne kon ñaari sëlma rek la ngay julli ñaar julli ñaar muy gàtt rakk bu ne nga jàngal ko fatiha ak xul yaa ayyul kaafiruuna yoon mbokk mi boo julli julli bi am nga yoolu koo xamante fa nga taxaw julli bala nga na la yu njëkk ak sa yu mujj waaye ci sax bindal na la nga mel na ku jaamu yàlla wala ku jaamu yàlla junni at te junni at yëpp suñ borom dëdd la defoo ci daray safaan defoo ci daray bàkkaar kon mbokk yi yàlla yàlla nangul nangul ñu nawaafili nangul ñu koor gi ma ñu yeggale ko ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu